Youssou Ndour sa patron dafa way nay boobu ba léegi yow kenn déggu la nga wax ci nay bi jaaxal na trop waa Sénégal oustaz loo xam ci nay. Euh, xam nga Apulaay góor ñi nayuñu dañoo yorul <laughs> problème bi mooy gars yi yoruñu. ba pare jigéen ñi ñi nu jàppee ku tàlli mooy ku dof. léeg-léeg nga dégg leen ñu naan diw day maye ba nga yërëm ko mooy kooku dèjà dof la gars yi nayuñu mais dañoo yorul yéen jigéen ñi yéen a gën a nay ñëpp lu ngeen yor di ko korkoral. yaakaar góor pour quoi nay gi ngeen bëgg koo féetale ci góor ñi rek gars yi nayuñu dañoo yorul ñaanal leen leen ñu yor waaw ku yor ngeen bëgg ko ngacc ba mu jeexal tàkk seeti moromam naan dañoo nay kenn nayul dañoo yorul nay amu fi farata la ñuy joxe mais li ngeen bëgg kenn mënu ko lu ngeen joxoñ ñu dagg ko di laaj guddeeg bëccëg di yow nooy jàppee nit bëgg koo laaj benn jour quatre cent mille fan la koy jëlee kuy fayeeku trois cent mille fu muy jëlee quatre cent mille gars yi yoruñu dañoo nayuñu dañoo yorul. oustaz gars yi laaj nañ